وسلم على من جاءنا بالآيات والأكرم وعلى آله وصحابته وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mbokk jullit ñi gannaaw bu sante yàlla mi nga xam ne moo bind jaamam yi ba pare ne kenn du dogal ci ñoom lu may moom yàlla mi nga xam ne nee na jaam bi du nekk jaam mukk lu may yegg na ci niveau bu xamee ne lépp lu am rek yàlla la koy adressé mu ne jaam bi mat mukk fekk mi ngi gis ne nit ñi ñooy def nit ñi ñooy dindi niveau la gannaaw bu ne mi ngi la bëgg ci nga nekk jaamam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg est-ce que jaam yàlla nga dëgg dëgg dëgg dana alquran ji ma wàccee yonent bi di ko wax hadis ya topp ca gannaaw loolu ma yónni ay yonent yu bëree bëri effort boobu yëpp lu tax yàlla mu ne pour nga xam ne man maay borom man maa man man maay def ah pour nga nekk abdanillahi ah abdanillahi yombul moo tax yàlla def na ci effort bu mag pour yow nga xam ne jaamu yàlla rek nga jaamu yàlla rek nga mooy lan mooy nga def ne yàlla rek mooy borom. tawxiid bu mag boo xam ne moom lañ njëkki moom la doomu aadama bi njëkk a xam mooy li nga xam ne mooy farata bi nga xam ne jaam bi moom la war a njëkk a xam mooy mu xam ne am na borom boo xam ne moo ko bind moom rek mooy yàlla ah ku dul moom du yàlla ku dul moom mënoo def mënoo dindi. mënoo lor mënoo feebarloo mënoo wérloo mënoo wërsëgal ah mënoo nangu ci wërsëg ah yàlla rek mooy yàlla mooy def mooy dindi mooy maye mooy xañee mooy feebare mooy wérle ah, loolu moo war a sax ci xoli ki mu am gëm-gëm boobu su ko defee mu nekk jaamu yàlla kese ñu julli di sëlmal ci sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yàlla jox na ko ay tur yu bëree bëri jox ko ay garaat yu bëree bëri waaye moom nee na bi ko ci gënal bi ko ci gën a neex mooy fu ko yàlla waxee ne ko yow sama jàmm wa annahu lamma qaama abdullahi subhaana alladi asra bi abdihi barab ko yàlla yëkkati yëpp ha? jàmm yàlla rek la ko fay wax ah kon fexeel nga nekk jàmm yàlla kese çıkın. قريظة بني قريظة تنيوم لي الله وجه سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما بني قريظة فمن المن بوخم من مدينة منور لن يكون يوتو صلى الله عليه وسلم بمن تكون مدينة يتفهم الوفاة يهودي بني نذير bani Qaynuqa ak bani Xurayda bani Xurayda nag ñoo yàqoon contrat ba bani Xurayda ñooy ñi nga xam ne bi Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam waxee ne bu ma kenn lor jógee ci yéen waaye kenn du jógee ci man lor ma ñoom ñoo fecc colère gi bani Xurayda ñoo dugg woon ne al fokk danañ toroxal Yonent Yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam yàlla bañ bani Xurayda ñoom la yàlla xeexoon wayoon na leen ngelaw muy xeex ak ñoom ñoom la yàlla wax ne la in lam yantahi munaafiquuna bani Qurayda ñu sonaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndoole ak ci xeex bokkoon ñooñu nag bi yàlla duggee bi bi yàlla demee yonent bi sallallahu alayhi wa am bés boo xam ne. dañ cee jóg carrément pour xeex ak yonent bi sallallahu moo tax ñu tuddee ko bés boo xam ne yow mu Bani Qurayza la yonent bi ñëw ba jàkkaarloog ñoom kenn ci na ko taxawal xanaa déggoo saaga yi ngay saaga yonent bi ne ko man yàlla may na ma personnalité boo xam ne suñ jàkkaarloo yi a dootu ma a saaga yonent bi ne tëll ñu noppi yonent bi ne leen kenn ngeen di arrière génn ci caaxaan gi nekk yéen ñii la yàlla soppoon golo yéen ñii la yàlla soppoon nangam yéen ñu yéen yéen yéen a jaamu woon lu dul yàlla te xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkee wutoon taarix boobu ñu xoolante seen biir ne waaw Muhammad ibn Abdallah kan moo ko wax suñ taarix kan ñu xoolante seen biir ne am na ci ñeen ñoo xam ne daal ñi ngi tasaare information yi ñi ngi génn di informer Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla wàccee ci ñoom wa ida laqu ladina amanu wa ida laqu buñ dajee ñoom wa ida laqu ladina amanu buñ ne dañoo gëm waxtu audience de waxtu audience amee diggante yahud yi ak sahaaba yonent bi salaay salaam yahud yi yëpp mooy ne d'accord nañ ak yéen mooy ne gëm nañ yonent bi salaay dëggal nañ ko parce que loolu lañ jàngoon ci tawraat yàlla na leen waaw iman waxal kese la yéen ndax wax rek ngeen ma ne waaye daal la ku ne dinaa mu qaalu amanna foofu rek ngeen yam wante yahud yi fàtte nañ ne gëm du wax kese al iman maa waqara fi lqalbi wa sadaqahu l amal ngëm i faut mu yegg ci xol jëf di ñëw confirmé ko ñoom nag wax ji am ci seen xol ba pare jëfuñ wax rek la ñuy def pour ndax saxaaba yi xam nga jàngoon nañ wa ida xalaw ila shayaatinim jàngoon nañ ko suratul baqara ca commencement ba yahud yi dafa bokk ci seen jikko ci naat jikkoy munaafiq munaafiq mu am problème ak boppam nga ne waaw nit ki naka lay amee problème ak boppam am na ki am problème ak boppam mooy koo xam ne li mu gëm mënu koo manifester nit ñi gis ko lii moo nekk sama xol waaye mën nga koo génnee ah su ma génnee leneen laay wax li ngay wax tamit nekkul ci sa xol kon ñu ne yow am nga problème ak sa bopp yow yow ci sa bopp problème bi yow ci sa bopp la nekk parce que li nga bëgg li la neex mënoo ko publicité ñëpp gis ko ah mënoo génn wax li nga bëgg li ne sa xol mënoo koo génnee mënoo ko manifester yàlla mu ne kooku moom dafa am ak boppam moo tax boo gisee toujours alquran ne xeebeer yi ñoo gën munaafiq yi parce que ki wetti moom am na problèm ak monde bi am na problème ak boromam waaye amul problème ak boppam parce que li nekk ci xolam la wax ah kii ngi ñuy nommé nañ ko nga ñëw ci bureau bi di ko ndokkeel yow bëggoo nomination bi ah sa yéene yëpp mooy mu yàqu nit jënd na oto nga ñëw di ko ndokkeel waaye yéene woo ko oto bi ah sa xol yàqu na lim nekk li koy ndokkeel. di ko ci encouragé bëggoo ko yow maanaam waxoo li nekk ci sa biir ah yàlla mu leen lay nekk nga sëy mu ne la moytu la ci ñooñu ah mu ne amal fit a ah, amal gëm amal iman a ah. ni ngay wax nga nekk ci yow ah sooy weddi nga weddi sooy gëm nga gëm ah alxuraan ci ko boobu la bëgg nga amee yow jullit ah soo gëmee dara ñëwal li la gëm naa ko soo ko gëmul nga noppi ah du ma dem ci invitation bi waaye sax invitation bi duñ ko def yow ni ñoom xeebéer yi ñoom loolu lañ def xeebéer yi boo xoolee dañoo wax ñun gëmul amuñu problème ak yoon bi salaay salaam oote nag gëmul loolu moo nekk seen xol yi loolu lañ def waaye munaafiq ñoom dañ ne takfuruna bi ma fataha Allahu alaykum ñuy critiquer seen borom xam-xam yi naa leen noor yéen mel yu baax ngeen jàng ci yonent bi su ngeen ñëwee ñu ko wax saxaaba yi te information boobu ngeen leen di jox ci la ñuy dëkk ëllëg xolum yéen ca kanam yàlla ëllëg bu ñuy débat yéen ca kanam yàlla information yi ngeen leen joxoon argument yooyu la ñuy génnee te boobaa ñoo leen di génne atuhaddisuuna bimaa fataha Allahu alaykum ndax da ngeen leen wax. parce que alquran njëkk muy wàcc tawraat ak injil yëpp li ko tax a wàcc mooy lan mooy ibn Sina ne am na benn yonent boo ah, bi yëpp benn yonent boo xam ne dana ñëw ismuhu mel nii mel moo tax Abdullah ibn Salaam nee na ni ma xamee ne yonent bi yonentu la moo gën a wér ni ma xamee ne sama doom yi maa leen jur ndax li ma jàngoon ci tawraat ne Ahmad dana ñëw ah guddul bu ëpp waaye gàttul ah bu ñëwee ñi lay mel bu ñëwee buy dox ñi lay mel bu ñëwee jikko yi la yore kumbaandu la yëpp nee na gis naa ko ci yonent bi sallallahu waaye nag sama doom yi xaw ma ndax seen yaay na ma xoolal témoignage bii nga xam ne mi ngi jógee ci yow wax yooyu yëpp nag yow di ñu ko informé di ko wax saxaaba yi ñenn ci ñoom ñëw na leen bu leen defati loolu qaalu atuhaddisuna bima fataha allahu alaykum li yuhaajukum bihi inda rabbikum alquran bu waxee li yuhaajukum ah mooy débat kii di wax lii kii di wax lii pour ñu seet kan moo gën a dëgër lay ah kan mooy gagné alam tara ila alladi haaja ibrahima fi rabbi moom la ci alquran feneen Ibrahima ne Namruud yàlla mooy dekkal mooy dundal buur bi ne ko ay man naa loolu bi buur bi ne ko noo ko mënee Ibrahima ne noo ko mënee xam nga débat bi commencé na mënoo lii mën naa lii xaaja xuloo nañ dàggee nañ débat nañ ah, bi ne ko am naa capacité rey am naa capacité dundal pour nga xam li yu xaaju pour firi na ko wan ma mu ne dem leen ci kaso gi ngeen génne ñaari nit yu ma tëj ñu ñëw mu ne rey leen kii bàyyi leen kii Ibrahima xalaat li nga bëggoon dungal naa kii rey naa kii Ibrahima ko waxuma loolu de léegi gannaaw def nga dara léegi nag fa inna allaha yaati bi shamsi min al mashriqi faati biha min al maghrib yàlla mu jël jant bi mu jógee ca ci ci machine indi ko yow fàcci bi aminal maghrib indi ko mu jógee nii fa buyti la di kabara kon Ibrahima gagné na débat ba Namrud mënu ko li yuhaajjukum moo tax gaa ñi danañ xuloo ëllëg ci kanam yàlla waaye bu ñuy xuloo jullit ñi dañ leen di gagné parce que xamoon nañu yonent bi xamoon nañ meloon xamoon nañ ñëpp waaye ah bëgg nguur ah ak bëgg pouvoir ak sax ci ci caaxaan moo tax toppuñ ko. li yuhaajukum bi inda rabbikum afalaa ta'qiluuna léegi nag ñu leen di yedd ne leen lu tax du ngeen xelu bañ di wax ak saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen di jàngal di leen di xamal melo yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ne ñooñu ñuy wax loolu awala yaalamuuna xamuñ awala yaalamuuna xanaa xamuñ ne anna allah naka yàlla yaalamu dana xam maa yusiruuna la ñuy nëbbu luñ nëbbu Ki enformasyon tuttuk ediyor Mısır'a sıra bırak. Yalla kamına koy. Ona yolumuna lütfen yetim yalla kamına koy. Ja? yàlla bu ñëwee moo xam bokkut ak sa xam-xam yow yàlla xam ak xam ak teew la xam xam ak teew dara waaye teewoo fa waaye yàlla xam gi mu xam xam la ah xam ak teew yàlla mu sirra wa axfa lépp xam na ko li def xam nga yàlla moo ne awwal wal aaxir wal zaahir wal baatin wax ju xóot la li nga gis man la li nga gisul man la li feeñ ak li nëbb ak lépp yàlla xam na ko boo tëjoon sa néeg di def xamal ne yàlla wal maakum ay ma kum, yàlla fu ngeen nekk rek li ngeen nekk xam na ko yàlla maa yasiruna wa maa yulinuna wa minhum ummiyuna am na ci yow li ñoo xam ne ummi yu na lañ ummi yu bu ko arab waxee mooy koo xam ne mënoo jàng xamoo jàng xamoo bind mënoo lire ah yow dañu lay baal rek wax la rek nga topp yàlla nag su waxee yow li ne ummi yu na la ummi yu na lañ bokkut ak ummi yu bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam alladina yattabi'una rasula nabiyya al ummi alladi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil ah nabiyya al ummi mbokk te ummi yu ne bii ku ñu wax ummi yi ku ñu yonent bi rek xas nañ la ummi yi bi tàgg la waaye ci yow yi xas la ndax yonent bi dañoo bëgg mu ñëw mënta jàng mënta bind parce que moo na a jàng mën a bind moo bind alquran waaye dañoo bëgg mu ne koo xam ne ñu doon soxla xamul dara ba pare muy na ñu jàng ah indi loo xam ne ñu jàng mënuñ ko bu ko defee mu nekk miracle jàng maintenir ba pare di jàngal professeur yi mu ne kéem taan arab ñu mënoon a wax lañ ñu mënoon a bind lañ mu am na xaaj sax yi nañ ko nga xam ne dañ ko daan def ca Kaaba ga arab yi ñëw di bàq maa dàq way maa dàq wax arab yàlla nga ne danaa indi koo ne ci yéen lay ma mosu leen koo gis muy bind mosu leen koo gis muy niir mosu leen koo gis muy jàng te bu ñëwee dana wax loo xam ne mënu leen koo wax nabiyul ummi laa leen di indi moo tax ba ko gars yi tuumaalee ne am na ku koy dicté yàlla ne leen kenn dicté wu ñu ñëw ñëpp ku xam woy ne ko demal wax ak moom waa ji nga mu kam ne leen xam ngeen man woykat la arab arab màkk yëpp maa fi dàq woy ñu ko waaw loolu dëgg la mboolem baxri yi xeetu wu yëpp am na ko ñu ne ko waaw dëgg la mu ne waa ji dañuy wax mënu ma ko wax wax ji ma dégg ci suuf am na ren waaye ci kaw am na meññet wax ji yaatu wala yow laa lay ca kaw la jëm waaye beneen wax dootu ko féete kaw wa min ummiyuuna laa ya'lamuuna alkitaaba yàlla firi na ko ummiyuuna ñoo xam ne xamuñ li ne ci tawraat laa ya'lamuuna alkitaaba fii mooy ne ñi leen topp xamuñ li Moussa indi xamuñ ko illaa amaaniya lu may dañuy mébét rek wa in hum illaa yadunnuuna wa in hum déet ñoom illaa yadunnuuna lu may ñuy njort Hmm? xam nga njortu moom bàkkaar rek moo ci topp inna ba'da zanni ismun moo tax njortu baaxul was fàggu nga ba léegi compte baa ngi fees mimmaa yaksibuuna fa man ya'mal mithqaala darratin xayran la wa man ya'mal mithqaala darratin sharran la yàlla mu booy dajalee dajalee lu parce que gars yi ñii li leen yóbbu wéyul mooy lañ doon fàggu rek di ko dajale rek ah di uyu yu bon yi rek di wax yu bon yi di dem ci yu bon yi rek yooyu di dajaloo bi nga xamee ne yonent bi tëkku na leen ne leen da ngeen ba léegi bokk na ci yow di seen parole ñu ne ñun duñ dugg safara wa qaalu lan tamassana naar safara soos yéen bi duñu laal wala illaa ayyaaman ma'duudaat wala bu ñuy laal sax ay bés rek la 40 jours ya nga xam ne suñu bàyyi gàmmoo ñu ko yëkkoo 40 jours yooyu la ñuy dugg waaye dañoo juum parce que bu ko yàlla su fekkee benn fan la sax wa inna yawman 'inda ka alfi sanati na loo xam ne xamu leen ko effectivement ñoom dañuy wax loo xam ne xamuñ ko ndax yàlla bu ne xaalidiina fi naari rek dañ fay sax ba léegi yàlla di la avertir di la moytuloo ne la balaa man kese ku fàggu ku dajale ku nekk ci yu bon yi say ah, ku investir ci lu bon ah man amila saalihan fa li nafsi wa asa fa sayyi'atan mooy jëf du ñaaw du ñaaw rek ngay def wa ahaatat bihi xati'atuhu nit ki ne ba nga xam ne li ko wër lépp lu ñaaw la lim lépp lu ñaaw la fa ulaayika ñooñu nga xam ne lu bon rek lañ leen di dégg ci lu ñaaw rek dañuy financé bu dootee lu baax duñ ñëw puukare ah bu ñu julli duñ leen gis asaka génneetuñ ko yu baax yàlla wax yépp ñu bàyyi ko yàlla mu ne fa ulaayika ñooñu. ashaabu naari ñooy boromi safara ñoom ñooy dugg safara um ñoom xaaliduuna way sax lañ fiyaa ca safara sa yàlla tontu na leen ñoom 40 jours la ñu wax yoo xam ne déedéet maa du dee bés yi limité wuñ ko da ngeen sax mu ñëwaat nag gis nga alquran fu mu ko rek day déglu wax nañu weddi wax nañ naafiq wax nañ nga xam ne dañuy wax na leen li mu leen di nag mu ne woon ñi nga xam ne aaminu gëm nañ gëm boo xam ne du wax kese de gëm nañ gëm ñi yegg seen xol ñu wax ko ci seen làmmiñ jëf ñi ñëw tegtale ko jëf ji mooy gëm nga julleen gëm nga joxe azaka waaye azaka néew na fu ñu koy génnee moo tax dégg naa benn waaye muy commentaire mu ne moo tax lakk yi bëri na yonent bi sallallahu alayhi nee na natt lu am lu may bàkkaar yi ko war lam yanzilil balaa illaa bi dam ñu ne du ko yëkkati mu ne illaa bi taw balaa yu bëri ngeen di gis mooy ne ah bàkkaar yi ñoo bëri rek moo tax yàlla mu ne ñi nga xam ne def nañ lu baax gëm nañ wa amilu saalihaati ñu def farata yi ak naafile yi saalihaat yi fu ko yàlla turu ci alquran rek farata yi ak da ci naw farata war na ci alal nga denc ko at ba at nangoo ko génne compté sax yow compté woo sax yow bay génne compté woo maanaam pare woo génne mbay mi jeex na pare woo génne yi ci banque yi xooloo xooloo li ci yàlla wax yàlla mu ne ñi nga xam ne nag dañuy respecté julli juróom respecté oor ya respecté azaka yi def lu baax ulaayka ñooñu asxaabu naari asxaabu jannati ñooy boromi aljanna hum ñoom xaaliduna way sax lañu fiyaa ci aljanna waaw wax na la ñu dugg safara wax na la ñu dugg aljanna léegi nag yow tax na yow yàlla ñu ngi lay wax ne ñu ngi gëm bi nga wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ci làmmiñam ne ah nattu yi du am mukk lu may ah, ñoo bëri waaye tamit gannaaw gi sallallahu alayhi wasallam wax nga yow mi nga xam ne yaay nabiyu rahma yaay ku ñu yónni pour nga yërëm wax nga ne dara du ko yëkkati lu may tuub yow yàlla ñu ngi tàll suñu loxo di leen wax de ñun reconnaître nañ baba bàkkaar yooyu waaye ba léegi ñu ngi tuub ah ba léegi ñu ngi tuub ñu ngi tuubal ñëpp di ñaan yàlla ci barke àjjuma ji ci barke ah nangu ñaan bi nga xam ne yàlla def na ko ci bés bu àjjuma ci barke yërmande bi nga الحام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان